bari nag mu ngi ci ba tax ñu baree bari di ci jam diina waaw rafet na nag pour nga tàggu ñi nga dëkkati loolu daal newu ci mhm. waaye bi nga tàggoo pour dëkkit du tàggoo da nga ñëw xam juróom fukk te téeméer la yóbbu nga tàggoo ji ndax nga am beneen juróom fukk boo teg ci téeméer bi mhm. <laughs> kooku bokk te bon manu la kii kéemaan moom dafay am billet mu mat mhm. waaye du dem te tàggut ay bokkam mu yëgal ay bokkam loo ko jox nag mhm. yow itam nag bu ko jox téeméer mu ñëw nga sargal ci ko ne ma kaala sax joxut ma ko wala kurus sax joxut ma ko te moom muy dem juróomi téeméer laa ko joxoon mhm. soo bëggee kaala wala nga bëgg kurus yow jox ko rek ne ko jëndal ma kurus ak kaala dëgg la waaye boo koy jox na jox ko ngir yàlla dëgg la boobu dañ bëgg ci départ bi nit ñi bàyyi xel ki ñëw jox si la loo koy jox jox ko ko ngir yàlla waaye bul seenu mukk kaala gum la yëg wala lum la yéeg te Makka kat maa ngi lay wax ne sam-sam mooy la fa dëkk la fa des mooy tàndarma leneen la fa des nag luuma la bu fa nit ñi indi seen marchandise nga ji ko jënd di indi kon ñii war a dem bàkk nañ bàyyi xel loolu ci seen dem soo demee ba wàcc jidda foofu fa leen nga war faa bàyyi koo nag commencé nga coono ndax coono bi sax yaa ngi koy commencé ci aéroport bi foofa nag sa mbiri bopp kenn ko na sa bopp nga tege ci yoon seen mu tawa yiñ leen booleet ñoom ñëpp kenn ko ci dee xam na faratay aj xam na sunnay aj xam na man dóob ya ba ba ngeen wàcc jidda bàyyi ko jidda waaye madinatu munawar bàyyi ko madina ñëw màkkatal mukarama la war ca màkka lépp xeeti aj yi nag di ñett danañ leen ko xamal mooy ifraat tamato akran foofu ca dina fa lañ leen war a xamaleen ñi leen di hajali ne yow boo ci tànn yow ko jaaj bi ma mosulaa dem dañ la laaj ki la yóbbu te moom lañ la booleel ci avion bi te moo tax nguur gi fay la kooku dana la laaj yow ne la waaw yéen ñii ma jiite yéen ñetti ban ban ci yetti yi nga soxla da ngay def tamato wala da ngay def xiraan wala da ngay def ifraat ifraat day moom yow kenn la da ngay eh, eh, eh, ne aj direct ba jeex nga génn makka ñëw def ci umra wala boog nga def xiraan xëy na aj ak umra loolu la am na ay sarta mu leeralal la ko nga def tamatoo nga jiiteel sa umra bu umra jeexee nga sumeeku ca makka bésëb juróom-ñetti fan ya nga bàyyi koo makka nag war a dem nag euh, minam bàyyi ko minam dem arafa bu aj gi jeexee nga jeexal def nga sa umra def nga sa aj ci mm-hmm. na euh, jërëjëf sëriñ Euh, li nga jiital ci wax ji am na solo trop trop ndax euh, wax dëgg yàlla euh, jar na ñu bàyyi ci xel pour wax ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi fas yéene pour dem li ma tënk ci wax ji nag mooy ponk yi juróom lañ daanaka ponk juróom yépp nag daanaka amul importance ci jullit bi war a dem lu dul ponk bu mujj ba hmm. ndax buñ ne jullit boo doonul woon jullit di julli du ñu xelaat ci yow aji bu ñu ne baalix boobu it am na solo tuuti léeg-léeg nga gis koo xam ne dina ànd ak doomam bu ndaw baalix waaye taxul bu demee dana def jaamu yàlla ndax ni ko xale di defee ñu fay ko ni lañ koy defee waaye du ponk ajam du ko wàcc mhm. ndéem am nga kàttanam yóbbuwaale sa doom euh, ñu teg teg ca euh, mooy ku am xel mhm. mooy képp koo xam ne am na ak jaxasoo gu nekk ci yow wala naax ci mage jarul ñu di la yóbbu ndax aj daf la wàcc ba pare waaye ponk bi nga xam ne xurrin ah, boobu tamit daanaka ca ba muy am solo ah, ca bu njëkk dañ daan wax ne képp ku ñu moom ah, du aj waru ko ndax wax dëgg yàlla amul lenn lu mu am lu mu moom waaye su fekkee ne wax nañ su fekkee wax nañuy tamit attan ci àttan boobu noonu nag sëriñ mooy li gën a am solo ci li ñuy wax foog naa ne bokk na ca mooy da nga am paas bu do paas bu mat sëkk balaa ngay tàggoo da ngay am paas bu mat sëkk bu la yóbbu màkk di am dund bu doy boo mën a bàyyi sa kër su dee borom kër nga di nga am loo yóbbuwaale bu ñaareel ba yoon wa dina wóor di nga xóolu ne di nga mën a dem ba màkk doo am jafe-jafe bu ñaareel ba màkk ga ngay wàcc da nga fa fekk jàmm joo xam ne benn mu doon jàmmi nit ak nit walla mu doon jàmm joo xam ne feebar lay doo euh, boo xam ne newul fa yëgoo fa benn mbas mu fa wàcc mooy waral loroo yii yëpp dafa bokk ci attan gi nga xam ne war nga ko atteindre comme ni nga ko waxee Serigne li des ci waxtu yu bariwul waaye suñu programme yi ñëw yëpp dinañ ci gën a xóotu mooy waajtaayu aj dafa am solo gis nga loo dugg te sa yéene rafetu ca euh, Serigne mën naa am coono kese nga cee am waaye doo ci am jaamu yàlla waaye tamit yëgle bi ngay yëgle ne yaa ngi aji ak yooyu yëpp dafa am solo am solo goo xam ne foog naa ne danañ ci gën a xóotu danañ ci gën a yaakaar su ko defee itamit ponki aji yi xamal la la cay farata la cay sunna ak tamit la nga xam ne moo ca war su ko defee yooyu yëpp dinañ ci gën a yaatal waaye daal li nga xam ne moom la ñuy dénku mooy yéene bi nga njëkk a wax mooy pas-pas ba ndax innamal amalu bi niyaat jërëjëf seen Ousmane di des ci programme bi bariwul mhm. ñu ngi ñuy yëkkati loxo waaye mhm. ñu bàyyi xel rek ci départ bi man daal li ma gën a mm, tiital ci mbir yi mhm. xam juróom fukk te téeméeri la yóbbu nga wër bokk yëpp di tàggoo ngir nga am lu ko mottali mhm. kon aj warut la man a goo toogal kii jamit bam di la jox mhm. lam lay koy jox na la ko jox ngir yàlla mhm. danga gis koo xam ne li muy daj bu ñib màkk màkka wallaahi dana toog bëri ci sax lu mu demee woon màkka kon léegi ñu ngi wan nit ñu ne nañ ko def ngir yàlla beneen bi may njëkkee ba ba émission bi jeexee buñ demee ci barab bi ñaanu kaaya nañ ñaan ci suñu réew mhm. yàlla dolli fi jàmm ak dal mhm. nañ ñaan ci réew mi yàlla yokk xéwal gi mhm. nañ ñaan ci réew mi yàlla dolli fi jóba dund bi jàppandi ñi ñu jiite ci kanam yàlla jàmmal leen ñu ànd ak seeni sago niñ tegee nii réew mi am jàmm jàmmi réew mi gën a continuer liggéey bi gën a tege ci yoon déggoo gi gën a tege ci yoon maa ngi koy sant ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi war a taxaw màkk ñu ngi lay sant ci fànn googu. Mhm. ñu ngi may wan ci ne nag mu ngi jeex. Mhm. ñu ngi gërëm nag jaarti comme ni nga ko daan waxee. waaw di gërëm it borom réew mi yaatal gi mu ci def. Mhm. ndax xam mu jot nga xajal téeméeri nit ñu bokkul. te yaa koy génnee ci sa man-man. mu dem ñu xajal leen màkka. def nga jaamu yàlla goo xam ne kenn su koo def. sëriñ dinañ dinañ ko gërëm it tamit ci jàppandal gi lu defal commission beeg ñëpp. Ah, dinañ gërëm it gaay ci yi nga xam ne ñooy dem. kon ñu di leen di leen jox daje. di leen wax ne suñu beneen programme bi ñëw. ngeen top ñu ci aj walillahi ala naasi hajjal bayti man istata ila sabila wa aqiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf jërë gen jëf Same.